ñu bëggee jëmale kanam nekkinu école privée supérieure yi ne fi si réewu Sénégal faaw rek ñu indi ay joyanti ci système bi ñu orienté bachelier yi yile daara di sàkku ñu yokk seen quota fexe ba yamale leen ak université publique yi. ñun euh, Sénégal képp koo xam ne am na bac ñu mën ko orienté soit ci université publique yi wala école privée yi bi ñu dajeeg ministre bi. wax nañu ne moom pare na di sàkku pour que ñu dooraat ndongo yi nga xam ne am nañ bac ñu yóbbuwaat leen ci école privée yi. bëgg nañu it ñu jubbanti calendrier daara yu kawe yi. école dafay tijji octobre di tëj juillet waaye université kenn xamul kañ lay tijji kenn xamul kañ lay tëj pexe yi mooy ñu woo ñi nga xam ne ñooy yëngu ci njàng mu kawe mi ñu koy wax enseignement supérieur ñu def lël. bu ñu defee lal génn fa benn xaatim boo xamante ni danañ ko mën a jébbal kilifa yi. ngir jubbanti bi le secteur nguur gi taxaw na fas yéene. jàppale leen ci procédure bi leen di may ay kayit yu wóor ni war nañoo wéyal njàngale mi ci yile daara. boo amee autorisation mën nga commencer dérouler say programme mais boo dawalee benn at ñu ne la ah jot na kat nga déposer say rapport dem ci anak mu ñëw saytu saytu sa établissement. bu loolu antoo mu jox la li ñuy wax habilitation institutionnelle nga continuer dawal ba ca kanam nga dellu siwaat ci anak anak envoyé waat ay expert ñu ñëw xoolaat saytuwaat say programme bu loolu sottee ñu jox la li ñuy wax accréditation bi leen ndaje ñuy amal di waajal séminaire ba war a am sa sali si njeexitalu weeru mai gi ñu nekk nii